merci beaucoup jërëjëf jërëjëf gars yi ñu ngi leen di nuyu merci gars jërëjëf ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant dingeen ma may dingeen ma may ma njëkk a waxtaan ak yéen loo xam ne du gudd su ma paree dinaa waxtaan tuuti ci kàllaama nasaraan ak communauté internationale ak presse étrangère bi fi nekk it ndax bëri nañ fi su ngeen ma mayee tuuti rek calme parce que message bi dafa am solo message bi dafa am solo kon maa ngi leen di ñaan tuuti dal rek wax ji du gudd xam ngeen li tax wax ji du gudd sama frère Barthélémy Diaz daanaka tënk na wax ji nekkatuñu ci jamono ay discours yu gudd jaru ko lenn rek laa leen di laaj li ma leen di laaj moy ndax pare ngeen pour xeex li ma laaj dama ko jaarale ci ñi fi teew rek waaye maa ngi koy jàllale ci l'ensemble di peuple sénégalais rawatina yéen la jeunesse tey ñi fi nekk échant ñi fi nekk nii tubarfakala macha allah ñépp xam nañ ndaje bu mel nii bët musu koo gis ndakaaru waaye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 Macky Sall du gor Macky Sall du naxante moo ko fi jëlee amul kenn Sénégal du kilifa diine du mouvement citoyen du parti politik du mag du ndaw amul kenn ku Macky Sall respecté faalewul kenn bëgg-bëggam moom ak soxnaam ak i doomam ak ñi ànd moom loolu rek la xam jàpp na ni keneen ku dul kooku ku mu mun a rendi la fees la jaay yàpp ba walla mu seddoo ko moom njabootam toog jàpp njàmburam moo tax ku mel noonu yàgg naa leen ko wax rapport de force la Macky Sall xam bu ñu xeexul ak makisal ñun ñii ñëpp Macky Sall dina jaar suñu kaw moo tax nag bu dee pare ngeen pour xeex bi na ngeen xam ni bii paa buñ ko doore amul taamoor amul dellu gannaaw te xeex bi nag ay niveau la ay degré la premier degré bi xam nga men booy mooy ban mooy dem leen binduju ci liste électorale yi parce que tappale yi muy def yëpp pour bañ ndaw ñi dem bindu ci liste yi la nee na un mois la koy def waaye boo calculer ba ci biir matul sax vingt quatre jours ndax boo génnee dimanche yi génne fête yi matul sax vingt quatre jours moo tax bu leen toog ba dernier moment ngeen di jóg bu ñu nee ubbi nañ ko suba dama bëgg fépp fu ñuy bindoo mu ñuul kukk ak ay nit ndaw ñu fees fa dell dem bindu ji mooy premier degré xeex bi deuxième degré xeex bi mooy Macky Sall nee na am na ñoo xam ne duñu doon candidat fii en 2024 xam nga suñuy wax xam ngeen man mi di wax ak yéen ba fi ñu taxaw nii on est à onze mois d'élection présidentielle ba fi ñu taxaw nii candidat la waaye sama mag jii toog di Khalifa Sall Macky Sall jaayoon na ko doole 2019 nekkul candidat ma ne leen Khalifa Sall day doon candidat parce que dootuñu nangul Macky Sall muy tànn kan mooy dem élection ak ku dul dem Macky nee na te yaakaarul lu dul justice magistrat yi moo waxaat leen ko magistrat yi moytu leen seen bopp parce que réalité politique yàlla def ko ay millions de sénégalais topp ci yow benn magistrat nga ne maay dem toog sama kër moo xam Macky Sall da laa jox xaalis. wala dalaa jox promotion wala dalaa xoqatal nga ne man maay tere kii nekk ma euh, candidat bu kooku nekkul candidat yow sa nekk ci réew mi dina jafe bu newul candidat sa nekk ci réew mi dina jafe magistrat yi moomu leen senegal kenn du fi nekk naa leen ragal leen yàlla parce que xamu leen ko seen yoon newu ci waaye comme nag da ngeen di jaay ni soo waxee ñu ne force restera à la laal loi est la loi du peuple que Donc force restera au peuple sénégalais. man de dinaa leen wax man Ousmane Sonko dama décidé xeex lu xeex bi laaj rek dinaa ko def lu mu laaj dinaa ko def xam ngeen président xalifa sal bi mu tollee fi ma tolloon dafa bëggoon won sénégalais yi ni moom om d'état la bëggoon sénégalais yi ni moom républicain la bëggoon sénégalais yi ni moom dafa gëm institution yi ñu taxañ ko laxas ko justice jaay ko doole ñu tere ko mu nekk candidat moo tax ma ne leen man institution Macky Sall faalewu ma ko république gu Macky Sall faalewu ma ko justice Macky Sall faalewu ma ko parce que ñoom parce que ñoom ñooy les hors la loi dans ce pays ñoom ñooy les hors la loi ñoom ñooy jël la loi jël les institutions jël la république mettre ko au service d'un parti politique d'une famille et d'une personne moo tax farata ñu xeex ñooñu ak xeex bi lu mu laaj ñu jàmmarloog ñoom farata la moo tax ma ne leen sama discours du weesu loolu de les hypocrites yi toog fële naa nitu fitna lañ